répondu maanaam question concernant euh, ñi nga xamante la disponibilité du fichier ak sax luñ ciy ñaaw njox ak ñi nekkoon ci fichier te gis ñu leen ci fichier loolu aussi bon je pense que c'est c'est des questions yi nga xamante ni le président il aurait pu quand même en parler mais boo xoolee moom euh, parrainage bi rek la tontu benn yoon peut-être euh, faxas bàyyi bàyyi mu jàll. renvoyé ci séparation des pouvoirs quelque part. ak yu ni demee alors El Malick reportu élection bi nga ne lan ci position wu seen parti. suñu position par rapport ak report bi c'est clair mooy ne ànduñu ci mësuñ ci ànd le président Déthié Fall depuis bi ñu ko xamee ba tey mooy cohérence lañ koy xamee ñun ñëpp lépp fépp fi mu tegoon tànkam ba mu duggee ci arène politique ba tey mësu ci vari donc lañ ca waxoon démb nag du tey lañ koy changer am na loo xamante ne nii bu amee. ba pare da ngay xool noo cay def parce que Macky Sall depuis bi mu fi nekkee ba tey lan la ñu tàmmal woola nax la woola jaxase la askan wi kooku nag tey yow mënoo toog ba euh, ñu ne deux un quarante cinq jours moo ko moo ko fi dese yow nga war a jëm ci moom naan ko kaa ñu waxtaan pour mu wutal la solution depuis qu'il la ban solution la mës wut loo xamante ne dafay jëm ci apaiser élection depuis qu'il est là forcing lañ ko mës a xamee donc koo doo toog ba tey jii nga war a xalaat moom lu jóge ci moom lu positif ñëw ci euh, opposition bi loolu nax sa bopp la parce que combat li ko président Déthié di waxee à chaque fois il faut jamais sa tromper de combat foo ci tor rek ak na nga cay doxee ak na nga cay demee dafa am solo mais soo toppee peut-être sa bëgg-bëgg wala nga topp sa xol moo lay dugal parce que par la suite lan nga gis bi ñu déposé seen kii bi ñu bëri retiré woon dañu bokkuñu ci ñu bëri dañuy taxaw ne bokkuñu ci am na ñoo xamante ne sax peut-être bañ koy bind teewoon nañu mais demuñu loolu yëpp li koy indi mooy yàqam ci parce ki ngay xeexal danga war a xam kan la d'abord ba pare ñun la président Déthié jàngal nañu kan mooy makki Sall lu mu leen wax ci Macky Sall. lépp lépp lu mu nekk. may ñu ci tuuti. lépp lu mu nekk am na leneen lu lalu ci biir. Hmm, moom Macky moom Macky maanaam bu wootee dialogue am na lu ne ci ba mu njëkkee woote dialogue bi mujj lu tax ñu bëri demuñu parce que dialogue amoon na fi amaat fi daf lay woo dialogue pour jaxase la askan wi mu woo la dialogue pour isoler benn homme politique. donc soo demee ba découvrir yooyu ci kooku pendant douze ans mu dem ba dese ko fa benn weerax lu topp yow nga ne da nga koy woo moom ci dialogue. di ko ñaan ndimbal. di ko ñaan ndimbal fi mu nekk nii nu muy def ba naxasal naxa nu sa. nasaxal nasaxal opposition bi. nam ko waxee woon ba tey jugu ci je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression te ba tey mosu ko dindi donc konk loolu wax na loolu mosu ko dindi. kooku man dinaa wut fépp ndimbal ba mu des moom nañu xool élection yi fi mu nekk nii li fi ne ak benn parenthèse wax nga ko léegi muy la cas de Bassirou fay wax jooju mu ci wax ak la mu wax soo xoolee dafa am contradiction sax moom ci biir communiqué am parce que communiqué la def tontuwul euh, collectif bi de communiqué la def joxe information ci moom ni mu ko bëggee ci le cas li mu ci wax ci loolu la ne ba tey procureur kan mooy chef am le ministre de la justice le ministre de la justice kan mooy chef am le président de la république moo tax foofu suñu programme le président Déthié Fall indi ci benn solution boo xamante ne nii dina war a mën a saafara parce que nit ki soo ko jëlee fal ko def ko procureur mu xam ne yow mii kat du jour au lendemain mën nga ko fa jëlee kooku su boobaa mën na dox ci say waaw mais le président Déthié ma anticiper par rapport au programme a proposé que ne cinq ans procureur bi cinq ans lañ koy nommé irrévocable maanaam cinq ans lay am kooku su boobaa dina mën a liggéey teewaayu bakkanam ak aqulaay taalaam. mu xam ne juróomi at yi mu xam ne juróomi at yi mission lañ ko sas te mission boobu mu am ci cinq ans moom la le président de la république am war a euh, ci cinq ans. loolu mooy seen proposition yéen. par rapport ak li nga xamante ne nii mooy. côté ombilical bi diggante parquet ak euh, exécutif bi xalaatu leen dagg ka. waaw non si parce que euh, les par exemple ñoom loolu la jàpp ne mooy solution. absolument couper carrément le moo tax ñun la président Déthié daf ne dootul siéger conseil. supérieur supérieur de la magistrature dootu fa siéger ba pare problème procureur parce que problème yi am yëpp parquet bi la maanaam problème boobu su ko réglé. yi ngay gis nii yëpp yenn kii arbitraire yi ngay gis nii arrestation arbitraire yi ngay gis yëpp dootul am parce que à chaque fois bu amee c'est le procureur qui s'auto saisi mais dégg naa nga ne procureur dañ koy nommer. cinq wow. ans cinq ans kan moo koy nommer. maanaam le pré le président de la république. mais est-ce que jàppoo ne après on va risque de revivre la même chose parce que ki nga xamante ni moom président. moo ko président moo xool ku ko neex. même su fekkee sax peut mais président moo ko ko jox ndomb moo xool ci procureur yi pendant cinq ans on peut revivre les mêmes est-ce que nit ki tamit gis ne ni man poste bi ma nekk nii je suis procureur de la république wala dara je suis procureur parce que le président a décidé qu'il en soit ainsi donc kooku est-ce que ameelu ma ko njukkal wala dara man peut-être côté boobu noonu laa xalaat je suis d'accord pour euh, un mandat mm-hmm. mais peut-être la personne qui va nommer si ça reste le président de la question de redevance. wala ouais. reconnaissance. mën na am euh, vis-à-vis vis-à-vis des deux parties. non ci loolu ça dépend ça va dépendre de la personne. Mm. parce que nit ki ba ngay jàng du président moom moo la yoo jël yóbbu la école. su la nommé da nga am qualité ak compétence yu tax mu war la fa teg mu war la fa teg pour nga servir sa askan. parce que même su nekkoon un mois la deux mois la quelque que durée bi da nga war a servir sa askan. El Malick ngay wax nii. ñi fi nekk di def naka su dul noonu yoon wala wala politique wala stratégie bi ñu teg dafa war a def de telle sorte que. la personne même su bëggee def. exclure les du mën a def. absolument donc d'abord d'abord bi njëkk. Mhm. bi njëkk d'abord loolu la. Mhm. parce que lu tax bi njëkk loolu la maanaam le fait que soo nekkee ci yenn précarité yi maanaam le président mën na xëy. du jour au lendemain. par rapport ak ak volonté am par rapport parce que gis nañ ko fii. ñaata yoon nañ fi gis procureur ñu dàq ko. procureur Ndaw. Alioune Ndaw Alioune Ndaw. Hmm. kaawam mi ngi fi woon fan lañ ko dàqee biir audience. lañ ko dàqee donc dañ ne premier pas bi ñu war a franchir loolu defe naa ci la bokk parce que tamit problème de personne tamit day am hmm. nit soo jàngee fa nga war a jàngee ñu dénk la. yaa ko war a mate am fulla am fayda bi war pour nga mën a doxal li nga war a doxal parce que loolu dafay am solo le président de la république quel que soit parce que mooy nommé moom mooy nommé au poste civil et militaire donc su la nommé déjà yow sécurité bi ngay am mooy nekk soo moytuwul sax président bi yow moo lay njëkk dem président bi moo lay njëkk dem parce que bi def passation yow booba nomeegu la donc yow di nga mën a am maanaam sab dalu xel mën na liggéey comme ni nga war a liggéey loolu itam mooy seen solution dañ leen koy nangul. bien sûr même si UMS ñoom dañu prôné pour que le lien ombilical soit carrément coupé. absolument euh, euh hmm. parce que le parquet c'est le maître des poursuites. absolument et tey dans notre dispositif quand même judiciaire dañu gis parquet doole bi mu am ku ñu on te retient en prison. et parfois vraiment pour des pour des pour des détails on peut le dire comme ça. et aussi tamit euh, aussi président nee dina mettre en place benn juge boo xamante ne ni mooy juge des libertés. loolu c'est une vieille proposition aussi voilà donc loolu il y parce que wax na ko waxati ko. donc engagement boo xamante ne ni jël na ko parce que soo xoolee yenn cas yooyu def daal au delà de la politique des fois nga gis ay cas de vol yoo xamante ne nit ki dañ lay téye ay mois ñu jugé la def nga defoo kenn du la indemniser dañ lay bàyyi nga ñibbi sa kër donc pour que ñu mën a régler question yooyu parce que normalement euh, arrestation mm-hmm. exception la war a doon. maanaam l'exception mooy ñu téye la mais nit ki comme que atteeguñ ko su fekkee toutes les conditions sont réunies pour ñu bàyyi ko mu ñibbi këram su heure kii mu jotee mu ñëwaat donc je pense que loolu tamit euh, lu am solo la par rapport ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci prison yi ñu leen di nuyu bu baax am fa ay jafe-jafe yu kenn xamul ak euh, problème euh, li nga xamante ne ni mooy prison yi xataay bi tout ça donc dina réduire bu baax li nga xamante ne ni mooy nombre dégg nañu sax d'ailleurs que am na feebar bu fa feeñ muy picc yooyu di génn ci yaram. donc euh, mmh. il y a vraiment lieu peut-être de penser à encore désengorger les lieux de mmh. détention commencé woon nañ ko fii avec les bracelets mmh. les libertés conditionnelles mais yàggul on mmh. a vu même qu'il y a eu encore beaucoup d'autres euh, arrestations de très nombreuses arrestations yoo xam ne gën na yokk prison yi fees et ñi fay nekk tamit ñu ngi dund ci condition yu jafe-jafe alors ñu des ba tey euh, ci processus électoral bi fichier bi bokk ngeen ci ñi ci am doute wala jàpp ngeen ne